ba salaamaaleykum salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum partout dans le monde di leen bëggee di leen safoo di leen euh, toujours tiitaro parce que bu la kenn bëggee euh, jar naa daw bay bëgg a dee masamaa ñaar ñetti ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent fukk voilà numéro diis ñu noonu alors di ñaanal dëkk bi ñëpp jàmm ak salaam euh, di ñaanal ñi nga xam ni vraiment ñu ngi ci organisation safar bi yàlla fay leen Euh, seen xol fay leen seen yéene nangul leen ci darajay Serigne Touba borom bés bu mag bi nga xam ni vraiment euh, man tamit commencé naa safar émission bi spécial safar la parce que indil naa leen koo xam ni après di ngeen ko gis euh, ci plateau bi vraiment muy nit koo xam ni Serigne Touba rek lay dund mi ngi ci xasida yi di ko jàng di ci dem partout dans le monde di ci tekki di ci tedd di ci teral ay waajuram kooku di doomu caajaay boobu mi ngi ñëw léegi Serigne Moussa ngeen gis ko dëkk bi jàmm ak salaam di wax euh, félicitation à Aly Ngouille Ndiaye gars yi ne nañu ma félicité la parce que ibil nga leen euh, buntu yi euh, boîte de nuit yi restaurant yi lambar lambar bi càmbar cambar bi fi mu ne nii commencé na ku ci réglé nag corona waaw. du teye ngeen jël seen matuwaay du teye ngeen sensibiliser ñi ngeen nekkal du teye ngeen protéger wu bu leen fàtte masque yi parce que bu leen mayee lépp bu leen jël lépp. waaye waaye protégé wu leen et puis set di raxas seen loxo yi clean ah set dafa bokk ci doomu aadama boo setee boo dewee dem àjjana mais boo saltee boo dewee dem safara safara ñu salte rek ñoo fa nekk te yal nañu yàlla musal ci ku salte ñun bëgguñu lu salte parce que salte wuñu très bien alors di ñaanal ñu ci hôpitaux yàlla fëgg seen bopp ñu dal ci société bi di ñaanal waa prisonniers yi nga xam ni vraiment ñu ngi màggal foofu 100 mètres commencé nañu safar bi chambre 9 10 11 12 ba 4 5 6 maa ngi leen di ñaanal jàmm yàlla neen yàlla defal jàmm ngeen dellu société bi man dinaa ko ak Aly vraiment président defaat beneen grâce parce que am na ay innocent yoo xam ni ñu ngi ci kaso bi ba léegi te dinaa fexe xeex ni ma xeexee ñee génn noonu laay xeexee tamit ña fa des génn mais am na ñoo xam ne du xeex nañ fa toog ba ci kanam parce que xam naa ni mu demee <laughs> alors comme que ñu ngi ci safar bi tey moom spécial Serigne Touba rek laa leen di defaral clip yëpp ay sant Serigne Touba la ay Sikar la ay way ci maam Cheikh Fall la way ci Serigne Fallu la di ngeen ci am bu soobee yàlla Waly Balago Seck li mu way ci Serigne Touba Sëñ Fallu bu soobee yàlla di ngeen ci am tamit ku ñu naan Moustapha. Euh, euh, Mouhamed ñaabu Serigne sa fa Serigne Saliou Mbacke li mu wax ci Serigne Fallou Mouhamed tamit dina ñëw yàlla na ñu yàlla fayal dinañ di ngeen am tamit Moussa Traoré li mu wax tamit vraiment. ci maam Cheikh Fall ak Serigne Touba di ngeen am Pape Coppet li mu wax ci Serigne Saliou ak Serigne Touba bu ko defee nag après Serigne Moussa borom caajaay ñëw tëj émission bi wax leen ci Serigne Touba wax leen ci xasida yi dafa leen lu extraordinaire ngeen xam ne tey émission bi du émission du émission wu caaxaan. tab pama boo paree dem xooli waali li mu woy ci Baye Fall Wally Ballago Seck est-ce que du tey sax de le retour di loo ñaaxarañ loo gis na vraiment liggéey bi ngay def ak njago oro one love sama gars yi let's go Euh, Bass Abdou Khader yàlla na fi yàgg te weer parce que 18 euh, safar baa ngi noonu commencé nañ ko depuis euh, barkaati demba dañ koy def di ko def di ko def di ko di ko ci teg nag di ko ci teg bàyyi faali yëngu leen kafe Touba yi na daw ah Bamba Alizé Bamba Alizé dimanche bi tamit woote na safar maam booy taximan dimanche bi tamit woote na safar man damay safar tous les jours du lundi au vendredi dimanche ma noppaliku lundi ma tagaat ka ci ba màggal bi voilà parce que ñun milliardaires noonu lañuy def di bëggee euh, vraiment suñu chéri Awa Ndiaye ak bébé si siini e eh, bébé siini wadd wadd ma seer daaro waaw fara wadd njaag ñeñeñe njaag njaag doomu lebu boobu doomu wakaam boobu vraiment di ko bëggee di bëggee yaayam euh, Awa Ndiaye di ci bëggee tamit euh, suñu xarit suñu doomu ndey Pape Fodé Pape Fodé wadd Pape Fodé Wade happy birthday to you doomu wakam boobu nga xam ni vraiment gëm na boppam doomu wakam boobu nga xam ni doomu nday Xaadim Cissé di doomu nday jaraaf Youssou Ndoye tamit ñu lay nuyu di la ñaanal une longue vie jaraaf Youssou Ndoye suñu xarit suñu papa ak sa famille bi sa njaboot gi yëpp ñu leen di ñaanal ndooyeen yëpp ñu leen di ñaanal ak man tamit personnellement sama bopp ci la bokk parce que Ndoye laa sant bu ñu nee Pape Fodé Wade rek parce que nekk doomu wakaam bu gëm boppam nag di immobilier bu mag boobu jaaykatu suuf boobu kooku nga xam ne ku mu jaay suuf validé nañ ko parce que am na crédibilité domaine am na crédibilité ca mairie ba am na crédibilité tamit en plus ci liggéeyam bi muy def muy Pape Fodé Wade chéri Awa Ndiaye yaayu vraiment bébé Sini bébé Sini Wade ñu ngi lay ñaanal di ñaanal suñu yaay mama Jaynaba duñ la fàtte yaay parce que lépp yow la yaa ñu nàmpal si sa ween bu sell boobu waaw parce que soow mi bu doon soow mu bon Pape Fodé bon bu doon soow bu baaxul Pape Fodé du baax mais malheureusement soow bu baax la soow garmi la soowu nit ku am teranga la suñu ma jay na ba yàlla na la fi yàlla bàyyi ba ci kanama kanama kanama kanam Pape Pape Fodé sa doom Pape Fodé Wade kontaan na ci yow parce que gërëm na ndeyam te ku ndey ku gërëm sa ndey sa ndey gërëm la très bien Pape Fodé maa lay ñaanal yow ku topp sa ginnaaw dina am jom dina am fula dina am fayda parce que liggéey rek ngay def chéri jay na ba boobu nga xam ne chéri Awa Ndiaye nga xam ni moo yaayu sii nii ni Euh, mooy euh, Fat Diallo faat Diallo euh, suba la huitième jour am di doomu tëngëj boobu nga xam ni euh, xaritu ñëpp la woon vraiment ñu ngi koy jaale grand gala Cissé ah, di ko jaale Anna Modi fàttewuñu ko Khady Sow vraiment Khady Sow ñu ngi la koy jaale di ko jaale tamit waa Touba sëriñ Abdou Saxoor moom taaliba sëriñ Abdou Saxoor Mbacké fa euh, la woon vraiment ñu la koy jaale di ko jaale tamit encore une fois président fédération bi Pape Lamine Diop doomu Tëngéej boobu nga xam ne mu nga këri kaw sensibiliser jeunesse bi yëpp mobiliser jeunesse bi yëpp teg jeunesse bi yëpp ci yoon vraiment ñu ngi lay ñaanal yow jëwriñu fédération bi Pape Lamine Diop ak waa këri kaw yëpp képp ku xam Faat Diallo daal nañ ngeen ko ñaanal fatiha defal ko ñetti lixlaas suba le huitième jour bi ñu gën ko ñaanal wàcceel ko ay kaamil parce que xale bu adorable la woon ñu ngi koy jaale waa Touba yëpp rawatina njabootu sëñ Abdou Saxoor Mbacke boobu paasu yeggaleel ma njaal mi dinaa teew suba parce que foofu sama koñ la këri kaw te sama xarit la woon di ci nuyu mam Kumba jabaru Abdou di ci nuyu ñuule ñuule sama chéri surnom boobu laa xamaa ñuule <laughs> alors voilà di wax euh, Sofia e eh, Sofia Camara ñu ngi lay bégee Sofia xale la ndeysaan eh, Sofia nuyul ñu may mun a munaas Mariama c'est très bien nuyul ñu famille bi yëpp Sofia eh, mi ngi dëkk fële ca parcelle unité 26 27 28 29 ba 30 sax waaw bu amul sax am na ñu ngi lay bégee bu baax a baax Sofia merci à toi xale boobu nga xam ne yaru na gëm na boppam Sofia xale la ndeysaan loolu la koy wax alors ñu dem xooli prochain clip bi en attendant lépp ci Baye Fall yi la tey mu way lu mu wax lu extraordinaire lépp ci safar bi di waajal màggal bi ci Serigne Touba euh, moo ko waral Mouhamed Niang Serigne Saliou ay pa ma pare nga tekka ci <laughs> fallu jar na jaayu papi nel musa Léopold Sédar Senghor ku jaayu ma jaayu ku jaayewul ma jaayu man damay jaayu nee naa leen ubbi naa téléphone yi pama ubbil ma ana bàccali ubbil ma téléphone yi ma joxe paasu Touba ma joxe paasu Magalu Touba ku mu nekk teel dem ku mu neex bàyyi ba fay bi nga dem ku mu neex dem suba ku mu neex bàyyi ba ci jour bi nga dem jaar payage parce que passe bi ma lay jox dina ko jar et eh, lan saar lan saar voyage maa ngi lay nuyu sama karit boobu vraiment di doomu euh, mbu mbay mbay saar mbay saar fu mu nekkati mbay saar ah mbay saar doomu tubaa boobu transporteur bu mag boobu mbay saar Sénégal Tour <laughs> allez woote leen euh, ma saafoonte ak yéen maye paasu Touba fu mu ne cent cinquante mille la ngi nii mais damay maye par trente mille bu ma neexee maye vingt mille bu ma neexee maye dix mille <laughs> voilà di ci nuyu madame ñaa madame ñaa maa ngi lay bëggee Ndeye Fari fàttewu ñu la vraiment di bëggee tamit Ndeye Fari Ndiaye ah Assou Mbacké Assou Mbacké bu bu bu Fata ay waay Assou Mbacké Fata Mbacké balay sak mu doomu ndeyam ak baayam surtout maamam assu Mbacké ñu ngi lay bëggee mi ngi waajal màggal bi aw di ci woo taalibe yëpp Assou Mbacké Fata di ci nuyu madame Diallo awa fële ca Mali moom tamit di fo bu mag fële ca Mali di liggéeykat nag di jigéen ju mën góor ubbil ma téléphone yi eh, Bathily affichel ma tous les numéros intérieur extérieur concerteur concertateur <laughs> bilay ma safadi alors ñu dem xooli euh, euh, vraiment waaw Baye Karim fàttewuñu la vraiment di nuyu waa kër sëñ Abdou Karim Mbacké yëpp ñoom jot naa seen message di nuyu tamit euh, Pape Fodé Pape Fodé vraiment Pape Fodé Wade ñu ngi lay ñaanal happy birthday to you longu vie santé prospérité chéri Awa Ndiaye vraiment euh, baayu bébé Sini reewal bébé Sini nag ba daf nee na bébé Sini yaayam mooy jabaram mooy maamam mooy yumpaañam parce que moom la jëkk gis si doom bu jigéen Pape Fodé yàlla nga dund ba muur sa doom jooju muy sëyi nga dund ba fekkee sa njëriñu doom jooju bi jaay Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam di nuyu waa France chéri Bathily waaw Bathily di élément ci kër gi mag ne naa ma nuyul ma sama jabar ca Paris akat na baate te jonge nuyul ma madame ca Paris <laughs> <laughs> lii moom xam naa da koy dagg séquence bi da koy dagg rek yónnee ko madame Bathily nee na ma ñu ngi maam madame ca Paris <laughs> dama tay lii ku ko wax sa maam tukki alors maa ngi nuyu Fatou Diallo di ko ñaanal Diallo Jéeri di jabar ci Ismaïla Lo di nuyu Ismaïla Lo tamit mi ngi jaale Fatou Diallo waa këri kaw yëpp Ismaïla Lo mi ngi leen di jaale ak Pablo Galvan waaw Pablo tamit mu ngi leen di jaale jawrin Pape Lamine Diop Pablo Galvan mi ngi leen di jaale chéri Assou Cissé vraiment ñoom tamit ñoom ñëpp Cheikh Apuy ah Mbaye Diagne Mbaye Babacar ñu ngi koy euh, ñaanal moom tamit euh, gudd fan ak wér gi yaram alors ñu dem xooli troisième clip bi dugal nag suñu invité ñu ñëw waxtaan ci safar bi luy signification safar ak moom lu ko xiir ci jàng xasaayit ak lan moo ko inspiré ci Serigne Touba ak lan moo ko inspiré ak lan mooy njëriñu xam-xam moo yooyu yëpp dama ko jàng ba jal jël werd yi naase bil xaq bil xaq dama koy werd guddi ak bëccëg bu sama pexe jeexee ba jeex ba jeex ba jeex ba jeex ma ma ma werd jës bu ah seede yàlla waaye man non non man man du ma man papi nee ma non grand vraiment du yaw ma ne ko man la sax Abdou Ndiaye ku caaci doomu Alaaji Ndiaye ak Marème Ndiaye bete bete bi <laughs> allo allo. allo. oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si na nga def. maa ngi fi rek. ak fooy wootee ak ah allo xanaa dafa sàcc téléphone am na kuy kaas ci suuf de <laughs> Moustapha waaw kooku mooy euh, koo xam ni vraiment mi ngi ci kër gi yaru kenn du ko dégg ute naak ture Touré da ngay ñëw di fayeeku doo ko fekk biroom nga koy woo du jël naan la xaalis amul te xaalis am na lii man dama tàyyi ku ko wax sa maam dem ajana laa ilaha illallah seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam alors ñu troisième euh, morceau bi dugal nag suñu invité Moussa di doomu caajaay bu mag boobu vraiment di ko nuyu di nuyu soppeem yooyu di kura di xaritam di sëram di soppeem vraiment waa caajaay Mbour Gosaas yéen a moom tey émission bi waaw ba ba Touba parce que Moussa mii doomu Touba la tamit booy xool parce que bokk na fa alors kan la ñuy xooli ñu xooli euh, Moussa Traoré waaw Pape Thiopet xam naa après mooy tëj ñu def Abdou Abdou mi ngi pare lu extraordinaire album baa ngi ci yoon bi di rakk Mouhamed ko ku gen ni Abdou Niang dinaa ñëw ci moom xale boobu nga xam ne mi ngi ñëw dal seen kaw waaw mën na way baat bi neex na yaru na am na diine bëgg na Serigne Touba te Serigne Touba Serigne Sali wa ko yar kooku bu tekkiwul ci way ku tekki ci way moo tax ma koy ménage di ko coaché <laughs> ñu xooli Moussa Traoré li mu wax ci Serigne Touba mais Sidi. waaw waaw mi ngi noonu Moussa Traoré bref ah, vraiment way na Baye Fall yëpp. ñii nekk ci clip bi yëpp ay Baye Fall la di ci bëggee Mané saw tamit ñu ngi koy nuyu moom moom taalibe Seydina Limaamu Laay la Mané saw mais yaay Fall la <laughs> di nuyu mbay si boroom jën yu baax yi vraiment euh, maa ngi leen di bëggal di wax nii alors ma jël ko ci ligne bi oui allo allo. allo. oui bu càccee nu mu demee. naka liggéey bi. sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu wa sallam di ànd ak njàpp nag saa yu may génn. jaajëf waay. dama tàyyi kenn du ma safu la. ça alhamdulilah. waaye foo foo may woowee nii. maa ngi lay woowee Pikine. ah waaw waaw loo wax ci màggal Tuubaa bi yaa ngi koy pare. maa ngi yaa ngi gis lii lan la. lii nii nga ñaata la. ñaata la. li nga yor ni dix la. waaw teg naa ko teg naa ñaar muy ñaada. muy vingt. waaw fan nga may woowee. Pikine. Pikine. waaw. non yow il te faut vingt cinq mille wala trent mille minimum. voilà. <laughs> wa ah, waaw waaw waaw parce que xam naa bisu tataayu euh, Sénégal Tour yi ngay jël yu mag yi. climatisé yi am fi am lépp. am dem daa war a confortable daa am noo war a mel. merci kon foog ma boole la ak Langsar. Langsar automobile mooy dan dan sa dan dan moomu eh. waaw dan saar moom dinaa la boole moom parce que dan moom vraiment nit ku baax la Sofia xale laa day saar alors léegi xam nga nu ñuy def ah. xaaral ma wax bàcc li bàyyil sa numéro téléphone rugi ci bàcc li waaw bu ma amee cinq personnes rek ma tiire ko devant la télé ngeen gis ki gagné ñëw jël si xaalisam wala ñu ah non non non ki ñu envoyé ko aw ma nag fu ñu ko koy envoyé parce que man aw ma envoyé sponsor sponsor yi ma am ñu ngi nii vraiment VIP white baa ngi nii di savon bu extraordinaire maa ngi ciy ñëw léegi vraiment ak VIP rose maa ngi ciy ñëw léegi léegi léegi léegi léegi léegi léegi alors kon léegi bàyyil sa numéro téléphone Régis bàcc li jëlal numéro jëlal ma numéro téléphone am nga wax ko sa tur très bien voilà mi ngi noonu damay joxe paasu màggal woote leen gaaw balaa émission bi di jeex bu ma amee cinq personnes joxe cinquante mille loolu man maa koy def le milliardaire saoudien noir Sofia bu la neexee Bédiou alors sëñ Moussa. ñu ngi lay bëggee. sëñ Moussa ñu ngi lay safo sëñ Moussa ñu ngi lay nuyu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah. waxal ca kaw ñu dégg la nga ni ma. waaleykum wa waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. voilà ma bàyyi la nga nuyoog waa Sénégal waa adduna bi yëpp euh, nuyoo leen nuyoo. murit ah, maa ngi leen di ziare bu baax yéen waa. Mamadou ci ah sama séeréer bi a ah, ñaaja Modou Faye. maa ngi ziare ñëpp. waaw Sénégal ñu ngi leen di ziare ñëpp. Mhm. di ziare suñu mbokki jullit yi. Mhm. rawatina mbokku taalibe yi ni mbokki murit yi. Mhm. di leen ndokkeel ci weeru safar bi xam ne weeru mbégte la. di wax ne nañ socc suñuy bañ tey rek te xam ne ci mbégtem safar la ñu nekk. waaw stress moom war ah di bég rek ba màggal. alhamdulilah rabbil alamin xaaral ma jël ki ci bi xam na màggal la bëgg a dem. Oh, yow yaa koy jël sëñ Moussa waxal ak moom. asalaamaaleykum. bisimilah. salaamaaleykum. maaleykum salaam allo. Ah, maa la gën a rey lamiñ de. te yow ngay jànkatu xasaay. maa ngi wala kii waay ah. maa ngi alo ku baax. <laughs> allo. allo waaw allo. allo. allo waaw maa ngi dégg. waaw ñu ngi ziar naka yi tey. ça va alhamdulilah. mbokk moomu ku mu. man Mamadou Sidi laa tudd. Hmm, Mamadou Sidi ñu ngi lay siyaar. Mamadou Sidi. maa ngi lay fay. mbaa yéen ngi si jàmm baax. ñu ngi si jàmm baax alhamdulilah yéen nag. ñu ngeen def ak safar gi mbaa yéen a ngi koy dund bu baax. ñu ngi koy dund bu baax di waajal màggal gi incha allah. waaw noonu de moo baax moom. waaw loolu la. mbokki fan. mbokki Ziguinchor. Hmm, leen di siyaare bu baax. ana Ablaye Balde maire Ziguinchor mon ami. Abdoulaye Baldé mooy fii de. mbaa mi ngi def liggéey bu extraordinaire. waaw waaw mu ngi jàppale bu baax. mën na mi génn na ci participer na ci. waaw waaw. ren looy wax ci nawet bi. ah moom c'est agréable parce que bëri ñooy inondation affaire yooyu mooy loolu. mais mosoo gis soo gis yàlla buur bi azza wa jalla di defar te du yàqu yàlla bare doole. ah Mamadou Faye nee na ma yàlla day defar. ba nga ni defar na defar na defar yàlla day lal ba mu tàlli mu jékki-jékki rek buddi darab bi <laughs> xam lu ko waral. Hmm. Ah, saay-saay yi. dëgg la. ñi nga xam ne gëmuñu yàlla gëmuñu yonent bi gëmuñu Serigne Touba. dëgg la parce que nawet bi dañ ko yàgg euh, joytu hmm. te ma sàccaat wax ni président de la république xawma ko xamuma mais indiwu fi taw bi wax na dëgg mënul taye taw bi. dëgg la moom ci boppam la bokk ci moom xam nga dañ war warmaal président la mais bu doon keneen dama naan la ndeyam ak baayam sax mënuñu téye taw bi taw yàlla kenn mënu ko téye yàlla rek mën a taw ba mu lóor yàlla rek mooy xiin ba nga def ni day taw mu jékki-jékki naaj. waaw loolu moom dëgg la moom. Souleymane Faye wax na ko kon bokk yàlla dañ koy sant di ko gërëm saa ñu xëyee naan alhamdulilahi rabbil alamin di jullu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa sallim da waaw bëgg naa dem Touba bu baax. waaw yaay deuxième personne bi fàttaliwaat ma tur bi Bathily jëlal ma tur bi. Mamadou Sidi Kane Diallo laa. Mamadou Sidi Kane Diallo oh Kane Diallo bi nekk 2STV bi xanaa sa seen ñaari baay a bokk. <laughs> non non dama koy dégg rek. ah dégg nga fexeel xamante ak parce que seen baay yi bokk nañu. waaw dëgg la dëgg la. alors léegi euh, paasu Touba 25000 doy na wala 30000 parce que Ziguinchor ak Touba sore na. waaw sore na bu baax mën nga ma wax ñaata kilomètres la. non je ne sais xam naa ni sore na moom. très bien kon dinañu fexe dinaa fexe nga am cinquante mille yaay deuxième personne bi dugg kan Diallo dina jël nañ sa tur bàyyil sa numéro téléphone Roger bàyyil sa numéro téléphone. affiché na sax ci euh, euh, tableau bi mais jël bu jox jox leen ko. merci beaucoup alors bul bul dem Bakary dem dafa jax waaw ah, ok xam naa dinañ ko jël merci beaucoup alors euh, sëñ Moussa ñu gën la xamee ci Moussa nan. sëñ Moussa Marahib. sëñ Moussa Marahib Marahib mooy lan. maraaxib maanaam. waxal ci kaw sa caméra ngi nele man maa ngi fële man bul ma lijjanti bu ma la lijjanti lijjanti fee ma lijjanti fee ah <laughs> papi <laughs> gu ci waaw maraaxib li ko waral mooy. dafa am ci may dox moo ne nii muy jaalibatul maraaxib. génn ko ñu xool alhamdulilah bisimilah jàpp laa àndal bii mooy. jaalibatul maraaxib. zumal ma ko. waaw damay zum fii di zum fii di zum ci digg bi <laughs> maa zum. mooy jaa. libatul maraaxib libatul. maraaxib maraaxib. sëñ Touba ko taayoon. moo ko bind. moo ko non man du ma ko bind sëñ Touba ko mooloon. moo ko mool. yow xam nga ban année la ko sëñ Touba mool. Euh, xaw ma ko nag waaye xam naa ne ci géej gi la ko bindee. moom laa la doon bëgg wax géej gi xam nga ban année la yow ñaataat nga commencé jàng xasaayit. man ba ma koy jàng léegi defe naa 2006 laa tàmbalee ci diggante durus ak euh, jàng noon waaye ba may tàmbalee yëkkateeg léegi. Mhm. boobu maa ngi def cinquième defe naa 2013. jamono yi laa tàmbali njàngum xasida mën nga ma yëkkatil euh, ma man matabut ci fay neex na ma sindi di neex na ma yàllaaw bil Mustafa sindi di yàllaaw bi neex na ma jawartu neex na ma euh, yow ban nga sentir ni moom nga ma war a yëkkatil rek ma daanu xanaa gannaaw a leen a siyaare si ah ndeysaan maa indi leen xasida gi suñ tubaane woon mhm. waxal ca kaw muy ñe ko siyaar si woon fekkoon ko sar ñaanal waa desi bi ñaanal ñaanalal ma kër gi yeneen kër sama yoon newu ci waaw yéen kay jarut ñaan tawfeex rek ngeen am alhamdulilah alors moom woon ndax dafa am mag ñu jóge woon Sénégal gi mhm. di doxe fii ba Sarsara Sarsara waaw daan fa dox alhasado waaw Sarsara coono boobu nag xam ne am na ñu doon dee yoon bi déedéet ngir bëgg Serigne Touba ak coono ñu doon daj ca sëñ bi nag ne leen fi ñëw ngir man siyaare si ma danañ la danañ la jéggal tey ak ak àllaaxira Pape Fodé loolu Bamba Alizé eh Mister Mo borom Sacré Cœur jëlal bii Marcelo président jëlal bii mu noppee tegal leen ci ñaari bayit yoo xam ne sëñ Tuubaa ku bind mhm. nee na ku ko mokkal doo tàbbi safara allahu akbar sëriñ Tuubaa bind na ñaari bayit yoo xam ne ku ko mokkal doo tàbbi safara yow de sa ginnaaw laay ne parce que xam naa ni moom moo mokkal mënu ma ko sax ba kay mokkal départal ma xool doo ma fi bàyyi àjjana moom moo naan dagaj may dagaj ma xool ban malaaka may téye rek ma jëflante ak yow kenn du ma rey demal hamdi wa sukuri liman kulli bi saara 18 safar loori ah. dan doo na oh. tin inda sarsara oh. hamdi wa sukuri liman kulli bi sara oh. lohori dando nasukh mm. tin inda sarsara mm-hmm. lo'o sana'i warid mm-hmm. wanin bila saqatin mm-hmm. muzghadali min bani mm. دايما أنسارا lillahi kulli lada taalibe Seex Isa daanu nañu makromatan sëñ sëy taxal na wa fi nee na ma jéego fu dee ngay génne man sara innal lazina ila sëñ sëy sara qad qasadu ziyarati faroxo daarayni aw sara innal lazina لنا إلى سرسار قد قسادوا زيارتي فارخوا داريني أو سارة Pape Lamine Diop jawriñu fédération bi Baye Fall bu mag bi jëlal lii Serigne Touba nee na lii xasida bi ku ko mokkal boo dee taa bi àjjana ku ko mokkalul nag sama genre gi dinañ ko négocier xanaa ñun lu ñu ciy génne rek julli yeeg jàpp yeeg ak or yu ñuy woor ak xol bu rafet bi loolu moo ñu ciy génne parce que ci xasida bi lan la Serigne Touba gën a insisté ci xasida bi lan la ci wax da koo fekk sarsaara mm-hmm. mu ngi wax naan sax daarani aw saara loolu waykat bi wax na ko. mu ne ñi nga xam ne. talibe cheikh yu mag yi sax jàng ko. seen sey maa ngi nuyu. <laughs> mu ne ñi ne jaral naa ñu ñu kajoor mm-hmm. ñëw ba fii ziyaare si ma mm-hmm. suñ borom dana leen jégal allahu ak allahira waaw Serigne Touba moom fat oh yàlla xaaral ma jël ko ci ligne bi parce que Serigne Touba ni dafa gaaw a dugal nit àjjana mm-hmm. moom moom moom tabe na di waaw ah salaamaaleykum maaleykum bi na nga noo tudd ak fay wootee Amadou Ndiaye papa papi jëlal ma bi Amadou Ndiaye foo dëkk Louga. ah Louga loo lu muy yaatu yaatu ñetti koñ laa fa xam. maa ngi fay ñëw léegi. sanca ba moom laa naa la ko jëkk wax di nuyu montagne ak ak ak ak ak kër Alaaji kër Serigne Louga. di di ñaanal waa kër ji li mbay yëpp. maam Cheikh Mbay Tafa Touré. waaw Mor Souran. waaw na nga yaa ngi waajal màggal gi. waaw lu mu safara leen bëggoon de. ah. lu mu safara leen bëggoon. café. waaw lu mu safara waaw. ah waaw waaw café moom dinañ la jox kafe jox la suukar. oui. sa numéro téléphone je pense que affiché wu na fële 25000 café baax na da ngay jënd daal suukar bu mokk bi rek ngay jënd. waaw baax na kay def si njar. waaw. waaw léegi euh, bul coupé Pama jël sa euh, papi jël sa numéro ci suuf ak sa tur. waaw fàttaliwaat ma tur bi. Amadou Ndiaye. Amadou Ndiaye c'est enregistré waaw enregistré waaw na ma c'est enregistré dégg nga noonu muy sonné c'est enregistré Amadou Ndiaye lan ngay wax ci émission bi safar bi ñu bi ma créé nii 18 safar bi ma commencé alo allo. Amadou noo gisee 18 safar bi ma commencé. di ñaaxaat nit ñi ci gëm yàlla ak yonent bi am diine. ah neex na alamin neex na la. yes ay Iliman Iliman Sow borom Yoff happy birthday to you Iliman Sow ñu ngi lay bëggee bu baax a baax di la ñaanal gudd fan ak wér gi yaram alors ñu xooli euh, suñu sponsor bi nga xam ne tey vraiment moo ñuy gunge ci émission bi gis ngeen ki ma habillé nii Mame Marie Mame bu mag maa ngi ñëw wala may ma son gis ngeen produit yi xool leen produit yi bu baax ma ñëw voilà mi ngi noonu voilà bii mooy dindi cere yi mooy euh, euh, euh, tayel tayel ma tayel ma voilà tayel ma tayel ma ko tayel ma ko ma diker décortiquer ko bii nga xam ni bon pour lèvre la moo tudd bii boo koy diw sa lèvre li li pour la li pour lèvre rose boo koy diw sa tuñi du du am du didim sa tuñi di nga neex foon yow it di nga neex a di nga neex a fóonaate yow mi koy diwoo di nga neex di nga neex ñu lay foon ah Pago waaw dinañ la foon parce que sa tuñ dafay liis voilà mooy lipolèvre rouge ah beneen bi indil ma indil ma beneen bi ma xool waaw bii mooy euh, bi nga xam ni vraiment mooy savon VIP marron bii sa teint lay décortiquer ba mu marron gisoo sama teint bi ni mu marron wee xeesu ma ñuulu ma ci diggante bi laay nekk savon bi nag ñaar la dafa ànd ak gaam savon bi dafa ànd ak savon ànd ak lait boo koy diwoo vraiment dafay nekk lu extraordinaire bii moom ñëwaguñ ci parce que ñëwaguma ci parce que mooy VIP rose maa ngi ñëw alors yow yóbbu ma faneen fii taxawal foofu ma xool bi mooy euh, gamme VIP rose moom lañ nekk ni zumal ma ko gars yi gën ko xam moo ànd ak savon bi ak lait bi moom laa exposé sama table moo nekk nii c'est efficace waaw gis ngeen voilà moo nekk nii vraiment mooy euh, mooy gamme bi nga xam ne VIP rose VIP rose nag li mu ëmb bëri na trop vraiment euh, dina tax sa teint day métissé vraiment te day enlever ay rew day dindi ay rew yàlla nañ yàlla musal ci jigéen bu réew day dindi tamit cere parfois nga gis ku xeesal ba os ñu ni kii dafa am ay cere voilà moom euh, vraiment da koy dindi voilà vraiment euh, efficace na euh, te vraiment du la def benn sec effet secondaire du la ko def vraiment ñu ci ñaanal ñëpp ba pare dañuy def livraison à domicile et may may xale bu jigéen baa ngi noonu may moom day def livraison à domicile vraiment ci région bi fépp fépp fépp partout voilà vraiment tu verras les résultats boo ko diwoo dans une semaine de semaine laa la may nga sangoo ko diwoo ko dootoo am cere je pense que c'est intéressant numéro téléphone yi mi ngi nii vraiment ngeen jël ko nag jëlaat leen numéro téléphone bi jo jo beauté mi ngi fële route de Boune jo beauté cosmétique voilà jël leen numéro bi 77 127 68 86 127 68 86 boo leen bëggee tamit ngeen demandé ko ci whatsapp bi eh, laaj ka li ngeen soxla yëpp voilà 77 deuxième numéro bi 067 vraiment 96 euh, vraiment 03 77 067 96 63 boo leen ko woowee ngeen communiqué moom ci whatsapp bi lépp loo leen soxla ci produit ah luy reyal taat am na ko luy wàññi taat am na ko luy wàññi sein am na ko am na tamit luy rafetal teint am na tamit luy setal luy métti sa am na boo xam ne tamit day dindi rew vraiment am na tamit boo xam ni vraiment day dindi cere macha allah même sa loxo yi bu amee xam ñoo ñooñu di xeesal xam ne boo xoolee seen loxo sax xam ni dañu xeesal am na ga gaam bi euh, savon bi ak lait bi am na ko boo ko diwoo dans une semaine lañ la may macha allah ñu ciy nuyu le PDG Babacar Boubacar Boubacar Camara Boubacar ñu ngi lay bëggee bu baax a baax a baax di la wax une très bonne continuation alors ñu dem xool euh, ñu dem xooli euh, waaw VIP Rose moom moom moom tamit nee na ma bu ma fàtte VIP Rose tey métissé da koy defar di defar euh, di élever vraiment di enlever réew ak cere mi ngi nii. yesaay titi ñu dem xooli titi. voilà ma ci euh, remercier suñu xarit boobu Chanel Chanel. clip bi dina ñëw je pense que Chanel clip bi gars yi gis nañ ko xool nañ ko résumé na nañ ma jéego il faut que prochain prochain clip bi mu ñëw wala vraiment euh, Chanel ñu ngi lay bëggee bu baax a faax gis nañu clip bi euh, vraiment Baye Fall bi nga way ci Serigne Touba maa ngi la ciy remercier bu baax a baax Chanel artiste bu mag boobu nga xam ne vraiment ñu ngi koy bëggee moom sax mardi moom mooy ñëw parce que 18 safar la wax Chanel bëgg naa mu ñëw Moussa Traoré dina ñëw mook Chanel parce que balaa màggal gi damay bëgge gaa yëpp eh, Iliman happy birthday to you borom Yoff Iliman maa ne saw foo feete <laughs> mbay si borom jënni ñu ngi lay nuyu di la ñaanal quai des pêches ba fële ca Yoff mbay si big up ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax longue vie santé prospérité di nuyu tamit alaaji jaabi alaaji jaabi petit frère de Dame Ndion ñu ngi lay nuyu fële mbuur Mbour yéen a ngi may seetaan xam naa loolu man tamit maa ngi leen di bégee bu baax a baax a baax euh, di leen wax ni émission bi neex na jaajëf wax ngeen ko di ci bégee tamit euh, Boubacar Bouba Tange waxal ci after yi bokk voilà wax nañu ci after yi bokk mu ngi nii mooy borom euh, savon bu mag bi VIP rose euh, vraiment mu baax ci yaram di dindi rew di dindi cere di dindi vraiment li nga xamante ni mooy euh, salte salte yaram am na tamit VIP teint am na ci tamit VIP rose bi wax naa ko am na ci tamit boo xam ni vraiment mooy VIP jongama VIP jongama nag bon gaam la boo xam ni tamit day day réel saa voilà day defar sa forme vraiment ba mu baax gars yi euh, dañ koy ñaanal rek euh, Boubacar le PDG mu yàgg fi loolu parce que lii xale yi bëgg nañ ko defar formé waat seen sang yi ba mu extraordinaire vraiment defaraat seen hanche yi seen fes yi ba mu gën a nice wala ñu ngi koy béggee bu baax a baax wala di ci wax tamit numéro téléphone yaa ngi ni jëlaat leen ko euh, Jo Beauté cosmétique Jo Beauté cosmétique 77 127 68 86 ak 77 067 96 03 allo allo oui. allo. voilà gis ngeen fii ma génnee maam Marie maam bu mag boobu maam Marie moo ma habillé vraiment di di di di ñaw lu set. di ñëw ci màggal bi di ñëwal Serigne Bass Abdou Khadre di ñëwal kilifa yëpp Mame Marie bravo à toi di bu mag boobu couturière bu mag boobu di def ci fashion doomu ndey Faa Diego Faa Diego nag c'est ma femme madame Ka waaye madame Ka ñu ngi lay nuyu waaye na nga fanaane na nga yëndoo <laughs> ak Ndeye Fatou ak euh, Tata Aïcha ñu ngi leen di béggee di leen béggee alo oui salaamaaleykum allo allo voilà vraiment je pense que émission bi jeex na di ci béggee tamit euh, suma xarit booy Philippe Philippe Ndour yow laay tëjee booy kalal ma Philippe Ndour ma tëjee ko li mu woy ci yaayam ak papam vraiment way na yaay ji nag ma ne ko boo wayul ñu laaj la ko sa baay sax day way sa baay compositeur bu mag la Bouba Ndour Bouba day way di et sax xam ngeen ne Bouba day bindalaate ay way di làqatu il est très intelligent ma lay féliciter seetaan naa la jàkkaarloo vraiment sa parole yi am na solo Bouba Ndour sa parole sa c'est important yow ak Fou Malade ak vraiment grand Charles maa ngi leen di bëggee bu baax a baax ak Papis euh, Birima moom noo bëggee parce que Birima sa noon la <laughs> di nuyu Ndiaga di nuyu Bira vraiment di bëggee Bouba Ndour di ko ñaanal une très bonne continuation am na esprit de créer Bouba big up à vous nuyul ma Philippe ak Zeyna sama doom yooyu nga xam ni maa leen yar ñu am wërsëg am chance intelligent rek leen ak yeru yàlla na leen yàlla teg loxo si bay bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors ma leen di tàggoo ni émission bi fii la mën a yem et eh, tëjalee ma euh, Philippe Ndour waay papa li mu way ci yaay ji papa ji <laughs> Bouba maa ngi koy bëggee bu baax a baax di leen wax ni vraiment mardi euh, produit bi dina ma gungewaat VIP Rose euh, euh, jo beauté cosmétique dina ma gungewaat ci émission bi vraiment mardi bi di ñëw ngeen ngeen gën ko xam parce que tey daf ñu bett moo tax tey waxuñu leen lépp lépp lépp lépp lépp mais je pense que joxe naa adresse bi Facebook YouTube en direct la tey Instagram ñëpp dinañ ko suivre dinañ xam ni vraiment bi am na solo trop trop trop trop luy dindi rew luy di dindi cere vraiment luy setal yaram luy def euh, vraiment nga nekk un métis vraiment luy euh, defar sein yokk ko ak hanche yokk ko vraiment je pense que euh, entreprise bi am na solo trop Jo cosmétique Jo beauté cosmétique et eh, Bouba le PDG mi ngi ci nuyu papam vraiment di ci nuyu toute la famille di ci nuyu waa de Boune yëpp waa Yëmbal yëpp bégee bégee bégee one love à jeudi